صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر wax dëgg yàlla fii na am na soppeeku ndax taw bu bi nga xam ne moom lañ fi mujj a def moo xam ne mooy taw bu mag bi bi ngeen fi defee branche boobu wax dëgg yàlla képp ku ci soqi ko noonu am nga ndox moom li wax dëgg yàlla moom soppi ko na bu baax maanaam ancien to bi nga xam ne daal moom ñu da ci am ñu ci soqoon ci daaru ma mooy ancien bu njëkk bi boobu rek moom manqué ndox waaye nag bu njëkk bi bu mujj bi moom képp koo xam ne ni moom soq nga ci wax dëgg am nga ndox bu baax a baax daawataan daanaka mosul na ñàkk ndox fii déedéet bon ma saa xaw ñàkk ndox tuuti rek oto bi daal di ñu gaare fii sotti na démb ak tey moom amaguñ problème ndox wante avant moom daaru naan moom ndox mooy loolu moom sëtër bi yàgg na kay depuis tabaski ba léegi ñu am ndox bariwul sek màggal mom ndox mësuñu ko am démb daal lañ seetlu robinet yi commencé xeel waaw macha allah khel na bu baax tey nag moom sant nañ ndax rooti wuñ wante sek màggal heure yi dañ daan fekk ñu yenu paan di rooti waaye ci li ma gis ndax nit moo ne bu dee wax de li gis damaa gis man sama robinet depuis weer suuri ji amu problème ndox man ak côté yi wax dëgg kon ñu ci santu yalla yéen ak yonent bi ak tamit baax ay gannaaw sama naan waa def de xanaa du da lii def dara ba konduwaat ba xam loolu baax na am déet loolu moom li ma ko gis bëriwut ndax ñu ci bari léegi naa nekk sans poste rek lañ ndax am na ñu nekk dëkk bi xëy waaye wax dëgg yàlla ni ngeen di jàppe gis na ko man gis naa seen taxawaay même bu amul ndox it man seen taxawaay sama xool seet na ba noppi waaw ndax def ngeen li nga war a def yéen ndax nii def seet dal na sunu xel ndax fu ñu na wax leen ni mu demee moo tax seet dal na suñu xel ah mosuñu koo kontaan lu wax dëgg yàlla <laughs> heure bi ñu nekk toolu fii ren rek lañ ci wax waaye wax dëgg at fi nekk yëpp fii moom wax dëgg yàlla ndox mu fi ñàkk fii ci kër maam Thierno bi ci Daaru Manaan ewuñu ko tax waaye ren mu ñàkk ko trop moom. li ma gëm naa la loo xamante joor bi te kenn du ma fekk kon nag lu ma xam laay wax lu ma xam du ma ko wax man fi ma Sëriñ Tuubaa dénk muy bokkatu lu baax rek fu cib teew nekk ma ngay xel mën naa ko garanti teew bu ci xel ba ca git bu guddee dana xool dana xel loolu moom lu ma leer nañ nañ la te sama ndijoor lay lay laloo xam naa nag moom jafe-jafe ñàkkul mu am waaye bu xottu baara ko moom maanaam fu fa amul ndox rek dañu xamul tiwa waaye fu fa am tiwa bu ne bu bëccëgee dana xelli baa bu xelu bu guddee dana xelli bëgg nañ nag Moussa ndax dañoo bëggoon bu yeesoo màggal ñuy am ndox daal wax dëgg yàlla comme nii nu am rek nu di ko am xay nag yàlla moom du daje lépp waaye nag nuy ndox mi wàññi métti daal wax dëgg wàññi ko comme ni ngeen ko doxalee daal moom wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax suñu sañoon nit mu gën a yokku nag OFOR moom seen liggéey baax na ndax fan yi yëpp amoon nañ jafe-jafe ndox mais démb ay 10 heures yooyu ndox mi ñëw na bu baax a baax sama robinet bi da doon xelli ndànk mais fi mu ne nii pour ma takk ko sax dafa jafe ndox mi day dikk très bien moom daaw heure bi ñi dal fii dañ doon jël ay bërigo di rooti ndox di jënd ay bidon 200 300 fii jënd naa ko daaw mais ren moom sant yàlla rek di leen sant yéen seen liggéey moom jafe ngeen wax dëgg yàlla ay nit jaar nañ fi ba taay ne ndox mi day am te ndox amu mais yéen moom ren moom wax dëgg yàlla sant rek ñu leen di sant bu baax kontaan naa salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahim ma al wa safar